alhamdulillahi fi sirrin wal i'laanin wal abdu lillahi ma lillahi misaani فالحمد لا ماني لا هاء ولا ألف والعبد هاء وهمز ثم لا ماني بذلك الجامع قد سار الكمال له فرقا وجمعا وجمع الجمع في آن صلى عليه إله العرش مجتمعت فيه الحقائق من آن إلى آن mbokk jullit yu tedd yi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 te bañ ñu ko nangulee ci suñu mata digéeg manqué gi mën a tooñ gi di ko ñan rëcc rëcc yu ñu yëg ak yu ñu yëgut yu ñu tey ak yu ñu tayut yàlla na nu boole bal ci géeju njëgalam guyaatu yaatu gi bi jaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu dikk ak yéen nag ci seen eh, émission bu ñuy tuddee albayaan tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen waxtaan wu gën a riche ci waxtaan yi waxtaan wu gën a tedd waxtaan wu gën a kawe te mooy waxtaane sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax bu ñu fàtte ni alquranul karim waxtaanee ko yaa ngi waxtaan waxtaan wu gën a riche ci waxtaan yi suñu ndey Aïcha buñ ko laajee jikko yenent bi lan la woon daf ne jikko yenent bi alquranul karim la kon mën nañ ne booy waxtaanee alquran yaa ngi waxtaane yenent bi mën nañ ne booy waxtaane yenent yàlla muhammad yaa ngi waxtaane alquran ndax ñoom ñaar amul farqu ci seen diggante su ko defee yonent yàlla Muhammad daan na wax ma ni waxtaan wi nag buñ ko dooree rek xel yi day dem ci ku tedd ci ku màgg muy oustaz Ahmad Ba di boroom xam-xam di ko xamante ne référence la woon ci ndaw lu bëgg a am xam-xam di jëmu ju tedd di jëmu joo xamante ne fa tabaarakallaahu fànn boo ko fëgg rek da yaakaar ne fànn wii moom da koo naan toog kon ñu koy ñaanal. yàlla njëggal di ko ñaanal yàlla yërmandi ndax buñ xuusee ci waxtaan wi tudduñ ko rek fa tabaarakallaahu dafa mel ni ñun duñu gor bokk na ci yitte bi tax ñu def ko pour gëstu bokk na ci ay waxtaanam yu ñuy déglu ñu def yitte ak effort ngir gëstu lu mu daan wax ci yonent yàlla Muhammad kon jëmm joojee bu ñuy bëgg xuus ci waxtaan yonent yàlla Muhammad xel yi dafay dal di dem ci moom kon ñu ngi koy ñaanal yàlla njëggal di ko ñaanal yàlla yërmande yonent as-saidu saidu fi batni ummihi wa shaqiyu shaqiyu fi batni ummi yeneen bi nee na ku texe mi ngi texe ci biiru ndeyam avant tout waaye ki texe adi mi ngi texe adi ci biiru ndey avant tout kon ñi nga xam ne dañoo bëgg ti yàlla Muhammad ba mu jaral leen lu ne ko ñooñu ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko donnee ci seen biiru ndey wala boog nga ne ñu ngi ko jëlee ci azaliyatu waaye ñi nga xamante ni ñoom nee nañ gàmmu bidaa la wala di ko dàq ñooñee démb foo ñoo dummóoyu woon yàlla yàlla dummóoyu leen dañoo dummóoyu woon yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad dummóoyu leen waaye ku ku jublu ci yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad jublu ci yow te nag bëgg yonent yàlla Muhammad tawfiix la ju yàlla di roof ci xolu jaam duwul ay pexe duwul njàng duul da ngay bëgg bëgg lu mën a bëgg yonent yàlla Muhammad déedéet bëgg yonent yàlla Muhammad daal eh, benn leer la gu yàlla yor di ko ubbi xolu ku ko neex daal di ko fay dugal kon nag ku vérifier sa xool yëg ne mahabatu rasul mu nga fa fexe la sant yàlla kon tawfiix la te boo demee ci alquranul karim baatu tawfiix benn yoon la fa ñëw ngir am gu mu am solo wa ma tawfiqiya illa billahi keneen ku fa gis tawfiix boobu bu dul tawfiix bii ma wax ah mbokk yi kon jànguloo alquran leneen nga jàng waaye alquran li muy yaa yaa yaa benn baatu tawfiix moo fa ñëw ngir wan la ne tawfiix dafa am solo tawfiix nag mooy sa biir jàkk sa biti jàkk sa zahir jàkk sa baatin jàkk kon moo tax ku texe daal mi ngi texe ci biiru ndeyam avant dara waaye ki texe aadi mi ngi texe aadi ci biiru ndeyam benn nit yàlla day wax mu ne al abdu la yamnaahu min al wusul ila adamu suluk wala yamnaahu min al suluk ila adamu al iradati wala yamnaahu min al iradati ila adamu tasdiq wala yamnaahu min al tasdiq ila adamu tawfiq fa man wajada tawfiqa wajada tasdiqa wa man wajada tasdiqa wajada al iradata wa man wajada al iradata wajada suluka wa man wajada suluka wajada wusula benn nit yàlla dafa wax mu ni jàm bi dara du ko teree yegg ci yàlla lu dul mu ñàkk sóobu dara du ko teree sóobu lu dul mu ñàkk nammu namm dara du ko teree nammu nammu lu dul mu yàq ñàkk dëggu dara du ko teree dëggu lu mu ñàkk tawfiix jàm bi waxtu wu amee tawfiix rek dana am dëggu waxtu wu amee dëggu dana am namm-namm waxtu wu amee namm-namm dana sóobu waxtu wu sóoboo kenn du ko teree yegg kon su ko defee fa tabarakallahu lii tegtal la ne fa tabarakallahu ku bëgg yént yàlla Muhammad di ci sonn da ci def effort da ci def yitte rek yàlla la defal tawfiix waaye ñu ko bëggul defuñu ci yitte ñooñu yàlla defalu leen tawfiix ki ñu bëgg a dugg nag moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam mbooleem kuy nitu yàlla yëngal na pour gë pour xam dëgg-dëgg yént yàlla Muhammad waaye lottu na ci xam yénent yàlla Muhammad dëgg-dëggam lottu na ci xam dëgg dëgg dëgg yonent yàlla Muhammad mooy kan parce que yonent bi daan na wax mu ne ma arafani xaqun xayra rabbi kenn xamul ma dayok xam lu dul sama borom subhanahu wa taala moo tax Muhammadul Bushiri daan wax mu ne euh, kayfa tarxa ruqiyaka al anbiya u Muhammadul Bushiri daan na wax mu ne kayfa tarxa ruqiyaka al anbiya u mooy borom hamziya waaye beneen nit yàlla mu ne Muhammadul yi dafa yàkkamti rek waaye leer ga daal jiitu na sax loolu ne yonent yàlla Muhammad kunta nuuran wa kaana samaa maa'u wa aynan wa laysa tiinun wa maa'un fa ida kaana min alaka al alaau kayfa tarqa ruqiyaka al anbiyaau yonent yàlla Muhammad nekkoon nga leer avant dara nekkoon nga leer avant dara te boobu ñun ñëpp ñu ngi nekkoon ci ngumba wa aynan nga nekk aynu nitu yàlla yi nag buñ ne aynu mooy jëmm ju raxul dara te yonent yàlla Muhammad lañ ca namm waaye buñ buñ ne xaynu rek mbindeef yi dugg nañ mbindeef yi lañ la ñuy waxal moo mu nekk wa aynan wa laysa tiin wa maun nga nekkoon aynu doon jëmm joo xamante ne eh, ndox amul ban amul ne fa ida kaana min ala akala ala yénti yàlla muhammad soo fekkee ne yow ci sa kawe ci la lépp di kawe kay fa tarqa ruqiyaka lan bi yow kon naka la ñuy yéegee ci sa maqaama naka la ñuy yéegee ci sa yéeguwaay wi kon su ko defee lii teg talla ci yénti yàlla muhammad dayoom ak garaatam ak maqaamam yénti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amoon nay jamono ñun ñëpp dañ doon nelaw annaasu kulluhum naimuna na wal aadam ñun ñëpp fañ doon nelaw nelaw ak ñàkk am na ay guddi kenn ku nekk dangay ngay làmb sa bopp te kii kan la waaye lu ñiit ba nga mën a gis ne yow sa bopp nga làmb kooku yonent yàlla Muhammad am na ay jamono kenn ku nekk day làmb sa bopp ma làmb kan la waaye li la ñiital ba nga xam ne yow mii sa bopp nga làmb kooku yonent yàlla Muhammad kon kooku màggal ko jaadu na kooku màggal ko jaadu na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ma ne nabiyan arifan bi nubuwatin wa adamu baynal maa'i wa tiini Cheikh Tidiane fiyal ko ne kuntu waliyan aliman bi wilayatin wa adamu baynal maa'i wa tiini moo tax ñetti kunta am ba yowmal qiyaam dootoo dégg kunt yàlla moo ne kuntu kanzan lam oraf maa ne nekkoon ndàmbu la muy kenn xamulee woon waaye keroog ba ma nammee ñu xam ma ci la bind mbindaafoon boo xam ne ci la ñuy jaare xam ma te mbindaafoon boobu mooy yënt yàlla Muhammad yent yàlla muhammad ne kuntu nabiyan arifan bi nubuwatin wa aadamu baynal maa'i wa tiini nekkoon naa yénant xam ne yénant la boobu aadama mu ngi ci diggante ndox ban yàlla di ko mool ta pareegul Cheikh Tidiane ne kuntu waliyan ardi aliman bi wilayatin wa aadama baynal maa'i wa tiini Cheikh Tidiane tamit ne nekkoon naa waliyu xam ne waliyu la boobu aadama mu ngi ci diggante ndox ak ban yàlla di ko mool pare kon su ko defee ñetti kunti yi ñoo am ba ilaa yawmil xiyaama doo dégg kuntu ko buñ fa yàggal suñu bopp ndax détail la bu yaatoo yaatu yaatu tey comme yonent yàlla Muhammad moo ñu taxaw jug mën nunu avancé Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ma bay dan wax mu ne fataha wa rabbul bayti aynun wa innama yara aynu gaynan ghaibun xayra xaadiri nee na daal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal mooy jëmbu ji raxul dara nee na daal bari waa ne ñu koy gis moom ti yàlla muhammad mooy tomb mooy aynu bi di ko tomb xaynu nee na ñooñu dañoo fàdd pëyëg yàlla bi waaye teewuñu fa ndax yént yàlla Muhammad nee na aynu la aynu aynu mooy lu raxul dara lu amul benn sikk lu amul benn taas lu amul benn bàkkaar lu set wecc lu kawe lu sell nee na jëmu jooju nag su fekkee da ngaa jàkkaarloog moom mooy aynu bi nga tomb ko muy xaylu nee na xaayibun xayra xayra xaadiri yow da ngaa fàddu pëyub yàlla bi waay teewuloo fa ibnu farid daan wax mu ne am na benn téere bu ñuy wax euh, taayatu suluk moo ko taalif moom ibnu farid daan na wax mu ne wa min mat la i nuuran bashitaka lam atin wa min masra il baxrin muxitaka nuqtati ñi xuusoon ngir xam dëgg-dëgg yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na dafa mel ni ñoom ñëpp kenn ku ci nekk li nga ca xam buñ tajalee ñoom ñëpp luñ xam ci dëgg-dëgg yenent yàlla muhammad dafa mel ni puso boo jël dugal ko ci océan bu gën a mag génnee ko li taqe ci puso ba moom la ñu xam ci yenent yàlla muhammad lu fa des daal moo fa des kon yenent yàlla muhammad daal li waa ji wax rek ne géej la goo xamante ne du ngacc yenent yàlla Muhammad géej la guddul ngacc alquran géej la guddul ngacc kon lii ma la wax sànq mooy alquran boo koy waxtaanee yaa ngi waxtaanee yenent yàlla Muhammad yenent yàlla Muhammad boo koy waxtaanee yaa ngi waxtaanee alquran moo tax Cheikh Seydil Xaaji Malick si radiyallahu anhu jàmbaaru fàkk tëdd gi bu mu demee ba teel a comprendre li xew yëg ne tagg gi sax du tax nga jotal wala du tax nga matal wala du tax li nga bëgg ci wax ko ci yenent bi nga am ko ca Maodo nee na daayil itnaa ba damaa bëgg nga bàyyi ëppal gi nag qul kullal baraya unilu ma unilu bil mubinin Maodo nee na ñëpp ñëpp ñëpp lu ñu am ñu ngi ko amee ci barkint yàlla Muhammad ñëpp lu ñu am ñu ngi ko amee ci dara jint yàlla Muhammad kenn ku nekk sak am yàllaa ngi la yàllaa ngi ko amalee ci amuk Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon su ko defee Maodo loolu la teel a comprendre ne daa ili ittinaba qul kullal baraya unilu ma unilu bil mubinin li koy dëggal nag Maodo ne idil ijaad wal imdaadu minhu ijaat bi ak imdaat bi lépp ci yent yàlla muhammad lay bàyyee ko bu loo ak yent yàlla muhammad yàlla du amal dara dara dara dara kon ci dara ji yent yàlla muhammad ci la amalee lépp lu ma amal waaye nag ñiy jëriñu li ñuy jëriñoo it ñu ngi koy jëriñoo ci dara ji yent yàlla muhammad kon su ko defee ijaat bi ak imdaat bi yépp ci yent yàlla muhammad fa fa tabarakallahu lay bàyyee ko moo tax benn nit yàlla bu ñuy xasaan daan na wax mu ni yaa Mustafa min qablu nasati aadamin wal kawnu lam tuftax lawul axlaqu ay yaramu maxluqu sann aka baadama asna ala axlaq alxalaq nee na yow yent yàlla muhammad yaa moustapha min qabla nasati aadama yow moustapha njëkk yàlla di bind aadama te boobu sax yàlla defaragul kawnu bi nga xamante ne fi la mbindee fi war a wàcce nee na boobu yàlla sàkkagul dara nee na ndax mbindeef boobu nga nekk li nga nekk boobu nga doon li nga doon boobu nga kawee egg ci maraate bi nga nekkoon nee na ndax kon mbindeef war na mën a góorgóorlu wala mu mën a def effort ba mën la jox tagg bi bi war sa digganteeg moom kon heure boo jógee rek ngir dal ci yéen yàlla Muhammad ngir bëgg koo ko ci tagg rek keroog nga suufee moo tax imaamu Bushiri nee na nee na melalal yéen yàlla Muhammad lu la neex ci tagg ci melo ci kawe waaye du tax daal dëgg-dëgg li nga ko war a jox muy gëdd ga nga jox ko ko ku ñuy wax Hassan. ci ponkal ñi doon tagg yonent yàlla muhammad la bokkoon ku ñuy wax abdullahi bun rawaxa ci ponkal yi doon tagg yonent yàlla muhammad ci lañu bokkoon ku ñuy wax yusufa nabahani ci ponkal yu doon tagg yonent yàlla muhammad ci la bokkoon ku ñuy wax safi diine xalawi ci ponkal yi ci la bokkoon ku ñuy wax ibnu xojjat alxamawi ci ponkal yi ci la bokkoon ku ñuy wax abi yazid albastami ci ponkal yi ci la bokkoon demeet demeet demeet bu ñu limee day bëri kenn ku nekk ci ñii ay ponkol lañ woon yoo xam ne dara nekkuloon seen yitte lu dul ñu xam dëgg-dëgg ak dayoo yent yàlla muhammad waaye dañ cee lot abu yazid al bastami lim ca wax mooy waqaftu ala xaqiqati almuhammadiyati fa ida bayni wa baynaha sabuna alfa hijaban min nuurin law danatu waxidan min tilka alxujub laxtaraqtu kama taxtariqu siarati isa ulqiyat fi naar abu yazid al bastami nee na jug naa ngir xam dëgg-dëgg yenent yàlla muhammad nee na waaye sama digganteeg yenent bi fekk na mu am soixante di mille soixante di mille kiiraay juróom-ñaar fukki junne kiiraay yu fa dox nee na benn kiiraay bu nekk su ma ko jege woon dana ma lakk comme nu safara di lakki cunkoor kon foofu loo fu mën a jàngatee mu yent yàlla Muhammad daal li mu ci xadis bi ne ma arafa nii xaqun gayra rabbi sama borom rek ma xam dëgg-dëgg xam ku dul sama borom xamuloo ma Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mu ngi koy dëggal ci ay waxam moo tax benn borom xam-xam dafay wax mu ni fa muhammadun maana wa gaybun mutlaqun qad qayadat ko suratul garra nee na muhammad daal euh, maanaan la waaye inkuni li inkuni mooy koo xamante ne dañ koo côté ken xamu ko waaye li lii waral nit ñi am luñ ci xamas tuuti mooy suratul garra mooy meloom gi moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li mu nekk démb buñ ko bàyyi woon ci nekkanam nam boobu kenn du jëriñu ci yonent yàlla Muhammad kenn du ko xam waaye bu yàlla nam nammee ñu jëriñu mu namm ñu ñu ñu ñu ñu am lu nu mos ci moom daf ko wàccee melal ko melo ci melo goog la ñuy jaar tuuti pour mën a jëriñu ci yonent yàlla Muhammad moo tax benn borom xam-xam mu ni law lam tunazilhu masiatan suratun maxsusatan ma xamatil ashya yonent yàlla Muhammad su ko yàlla wàccee wul woon muy doom ci Abdullah di doom ci Amina. wallahi maa qamatil asiya konoon dara du taxaw ba nga mën a gis konoon doo mën a xàmmee doo mën a gis doo mën a mos doo mën a yëkk moo tax law lam yakun bayna al awalimi maabaran lam tasharil awsaf wal asmaaw yeneen ti yàlla muhammad mooy ma maabar mooy pont bi nga xam ne moo dox baynal xaqi wal xalqi yeneen ti yàlla muhammad wa barzaq baynal xaqi wal xalqi mooy pont bi dox diggante mbindee fi ak yàlla li jugee ko ci mbindeef yi war a dem ci yàlla te mu ñaaw ci yonent bi lay jaar mu segg ko xool nu mu leen ko rafetalee ba mu rafet mu jàllale lu jugee ko ci yàlla wara ñëw ci mbindeef fi ci yonent yàlla Muhammad lay jaar bu tàngee bay lakki mu xool nu mu seddee ci moom dóor dóor a si si ñun kon mooy barzaq baynal xaqi wal xalqi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li lay dëggalal noonu nag Baay Ñas mu ne law laaka yëpp xaqan xaqan wa ma duli wa law laaka yëpp ki daa iman an muwasili yonent yàlla Muhammad daal su nekkuloon ak moom nee na yàlla dana fi nekk di yàlla kenn du ko xam waaye su nekkooloon ak yonent yàlla Muhammad nit dana dund ba dee kenn du mën a yegg yàlla kenn du mën a yëg yàlla kenn du mën a xam yàlla kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy barzak bi benn borom xam-xam di waxaat ma ni mooy Baay Ñas radiyallahu anhu dëppook wax ji Abu Yazid al-Bastami waxoon. Baay Ñas mu ne dahabtu la amrallahi fi kulli madhabin li darki rasulillahi gayri muayifi lahu aynu alafin min alxujbi shahidan taxayara fihi qatil mutaxassisi Baay Ñas waxam ji dafa dëpp wax ju Abu Yazid al Bastami waxoon Baay Ñas ne na dahabtu dem naa la amrullahi maa ngi koy gëñ ci yàlla ñu ne ko luy jar ngay gëñ ak fan nga dem mu ne fii kulli madhabin ci bépp dem waay ñu ne ko ngir lan mu ne li darki rasulillahi xayri muayis ngir ma xam dëgg-dëgg yéen yàlla Muhammad te li ma jànkuwanteel ci yoon bi ci ay coono yëpp taxul ma naa mu ne waaye nag bu ma yeggee lahu aynu alafin min alhujbi shahidan taxayara fihi shahid taxayara fihi qatil mutaxassisi fekk naa mu am soixante-dix mille kiira yu abu yazid al bastami waxoon mu leer ma ne lottu naa ci xam dëgg-dëgg daal sangami bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax si Amadou Bamba mu ki mal ni Moustapha nag kii gars yi di joobe yàlla dootul amal lu mel ni moom dootul sàkk ku mel ni moom lam yabdu mislal Moustapha Muhammadin siran wa jahran fil baraya samadi ku mel ni kii nag la yàlla sàkk ndax namu namu yàlla moo namatul amal ku mel ni yonent yàlla Muhammad tëliwu ko de moom yàlla mii namu nama moo ko namatut moo tax si euh, Amadou Bamba mu ne lii baana kawnul Moustapha raisa li kulli man xat fodil ruusa leer na ma man Ahmadou Bamba ni Moustapha daal mooy mooy njiit li gis nga général yëpp bu ñu leen dajalee kuy seen général mooy yonent yàlla Muhammad ponkal yëpp leen dajalee kuy ponkalu ponkal yooyu mooy yonent yàlla Muhammad moo tax maam ahmadou bamba mu ne lii baa na kawnul moustapha raïsa leer gi ma leer ne mouhamad daal mooy njiit li li kulli man xat fudli ruusa képp kuñ fiy tagg di ko joxañ ne ko yaay gën wala yaay ki gën ñëpp kooku buñ ko dajale ñi gën ñëpp buñ leen dajalee inti yàlla muhammad mooy ki leen gën moo tax ma ni mouhamadun misaaluhu lam yaati fi ma mada wa abadan laa yaati mouhamad nag su ma ko doon misaal si ahmadou bamba nee na ku mel ni moom yàlla dootu ko indi ci kaw ni bii fi ma mada wa ak li tay ak li suba kii mel nii yàlla Muhammad dootul ñëw ndax lu tax ma ne sabata anna rabbana lam yurid mislan la fa misluhu lam yurid wiir na saxal na moom yàlla ne ku mel ni yàlla Muhammad namu nama moo dool namu bindati ko mel ni moom mel ni yonent yàlla Muhammad niroo waaleem sax dootul am kon su ko defee fa tabarakallahu yii ni ay mbir la yoo xamante ne benn bu ci nekk boo ci sukkandikoo sa cofeel ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana dolliku dëgg-dëgg yonent yàlla Muhammad benn borom xam-xam ma ni juróomi pays yàlla yi bu mu fiy nekk moom yàlla di yàlla rek yonent yàlla Muhammad nekk juróomi pëy yi di yonent yi rek di di di di di njaam kan kase pays yàlla bu ñu tuddee haahut laahut jabarut malakut naasut am juróomi pays yoo xamante ne bii mu ngi tuddee siru bi mu ngi tudd ruuxu bi mu ngi tudd aqlu bi mu ngi tudd xal bi mu ngi tudd nafs kon juróomi pëy yii yàlla bu mu fi nekk di yàlla rek yenent yàlla muhammad mi ngi nekk fii di ak njaam yàlla bu muy nekk ci huwa euh, ci haahut yenent yàlla muhammad mi ngi nekk ci maqamay sirru muy sekkare yàlla jógee ko ci haahut ñëw ci laahut yenent yàlla muhammad jógee ko ci sirru ñëw ci ruux yàlla jógee ko ci laahut ñëw ci jabarut yenent yàlla muhammad jógee ko ci ruuxu ñëw ci aqlu yàlla jógee ko ci jabarut ñëw ci malakut yent yàlla muhammad jógee ko ci aqlu ñëw ci xalbu yàlla jógee ko ci malakut ñëw ci naasut yent yàlla muhammad jógee ko ci xalbu ñëw ci nafs kon lii ay maqaama loo la yoo xam ne maqaama maanawiyaat la laa tamu soxal yeddu mooy loxo da koo mënta làmb ba daj ko maqaama maanawiyaat la kon yii bu fi yàlla nekk di yàlla rek inti yàlla muhammad mu ngi fi nekk ak njaam bi kennal yàlla moo tax bu muy nekk ci maqaama bu ñuy wax sirru yàlla da koo joor nekk ko yaa siina sirullah fi hadarati haahuti lay qabla al xalq innaka la min al mursalin waaye fi alamin asud e yow siin ak sekare yàlla gi bu ñuy déga siwoo fii yëpp ci maqaama yi dem ci maqaama yi da nga bokk ci ñu may yabal di leen yónni moo tax Uwaysil Qarni buñ ka laajee euh, bu mu bu mu dajeek euh, Omar ak Ali yonent yàlla Muhammad yabaloon leen ñu dem Makkatal Mukarrama ne bu ngeen fa dajeeg diwun melo nii melo nii mala na le ngeen jottalil ma ko nuyoo ñoom buñ dajeeg Uways jottalil ko nuyoo yonent bi bu mu laajee kii yekkee mu ne ko man maa Omar mu ne ak a baax kii kan la mu ne kii kii Ali mu ne ko ak baax mu ne ko yéen est-ce que xam ngeen yonent yàlla Muhammad ñu ne ko waaw woy si ne leen yéen gisu lu dul takk ndeeru yonent yàlla Muhammad gisu leen lu dul takk ndeeru yonent yàlla Muhammad da ngeen nekk ak yonent bi rek mais xamu leen ko kon foofu loo fa jàngatee mooy effort boo mën a def loo mën a gëstu loo mën a sonnee ba yaakaar ne peeg nga am na loo mos am na loo xam dafay mel ni xamuloo dara benn borom xam-xam ne yonent yàlla Muhammad fa innaka jam'un haythu anta su'unuhu qad ji'tu fardan duna saklin mumasil yonent yàlla muhammad yaa doon yaa doon léppi lépp tey nga ñëw doon lenn ci biir lépp li xoolal ma wax ju garaaw ji rek yaa doon lépp lépp tey nga ñëw doon lenn ci biir lépp li noo ko mën a déggatee li am lu nekk rek ci amul Moustapha ci nga amee kon Moustapha moo doon lépp tey mu ñëw doon benn pees ci biir lépp loolu bu la yàlla defalu tawféex rek danga nga weddi bu la yàlla defalu tawféex rek da weddi ba tax na digganteem ak boromam da gis à fois bu yàlla di wax bu demee bay digle rek day dégager moom responsabilité am teewal yéen ci yàlla Muhammad yaa ayyuha alladina amanu istajibu lillahi wa rasuli isa daakum lu tax yàlla waxu ne isa daawakum waaye isa daakum la wax su leen ooyee moom sàng bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu leer la diggante ñoom ñaar am na benn mbóot mu fa nekk li wax kat bi ne baynal muhibbayni sirrun laysa yufsihi xawru wala xalamun fil kawni yaxkihi diggante yàlla yént yàlla Muhammad daal am na fa secret boo xamante ne xale ma mënta ñëw ba bind ko waaye xel mënta ñëw ba takku yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam looy dëggalal waxam ji nee na keroog bu ko yàlla defalee rañaan mu dem bëttoo asamaan juróom-ñaar ba yegg ci yeggu waay wa nee na daal dama ni xaqun fi tadri fa am na man fi samawati wal ardi kulluhum xat maata yonent yàlla muhammad ne yàlla tàppee na ma ci boppam ba man yonent bi ma njortu ne ñooñ asamaan ak ñooñ suuf ñëpp dee nañ kenn dundatul kon nag fa ngay gëmee fa ngay yëgee ne carrément baynal muhibbay ni sirun lay sa yuf kon digganteem ak yàlla am na ci lu xamante ne bindkat mënta ñaw xalima ba mën ko bind waaye xel mënta ñaw ba mën ko takk jëmmu joojee nag yàlla jagleel ñu mu yint yàlla muhammad nga xam ne alquran a ngi naan laqad manna allahu ala almuminina is baasa min anfusihim rasula yàlla daal may na leen yàlla dimbale na leen yàlla teral na leen bu mu jaglelee bu mu leen jaglelee yonent boo xam ne ci seen biir la bàyyi ko koo xamante ni mi ngi leen di teg ci yoon wu yoon wu leer wi koo xam ne mi ngi leen di jàngal ayaat yi koo xam ne mi ngi leen di soññ koo xamante ne mi ngi leen di jëlee ci lëndam di leen teg ci yoonu leer moo tax jëmu joojee léegi nin ku yàlla defal tawfiix ci sa biir xool danga dund ba dee doo fàtte kooku ndax teraanga bu dox sa digganteek moom moo tax benn borom xam-xam nga ni tallaahi laa yunsa nabi wala ismuhu illa isa nasiya wa rasman maa yi maa ngi gëñ ci màggaayu yàlla ne yént yàlla muhammad kenn du ko fàtte turam it kenn du ko fàtte lu dul nit dafa dem ba fàtte ndox te ndox nan la ko nit di fàtte mbokk yi bokk na ci dund ak doomu aadama lu koy doxal mooy ndox heure boo xëyee rek li ngay njëkk a lijjanti mooy ndox kon nee na fekk nit fàttewul ndox du mën a fàtte yin teelu Muhammad fekk nit fàttewul ndox du mën a fàtte turu yenant bi ndax alquran boo demee wa jaala min al maai kulla shay'in hayy yàlla nee na lu nekk maa ngi koy def muy dund ci ndox nga xool turu ma ma boo demee ci alquran mu fa ñëw 63 fois dëppoog 63 ans yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dund nga xam ne loolu benn mbir la moo xamante ne fa tabaarakallaahu kenn xamul lu mu doon nga gis ne fatiha ak salatul fatiha benn bu ci nekk mu ngi isaara mu ngi junj yonent yàlla Muhammad fatiha alif la commencé nun la jeexee alif 1 la nun nun la mooy 51 salatul fatiha mi ngi commencé alif mu ngi jeexee mim alif 1 la. mim 40 la muy 41 41 51 ñaata la sëriñ bi du 92 kon benn bu ci nekk mi ngi isaara dëgg-dëgg daal yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xool latif bu ñuy liggéey nga xamante ne aajo boo am boo ko ci liggéey yàlla defal la sutura nga xam ne latif dafa dafa dafa wuyu turam mooy lu nooy mooy lu lewet mooy lu neex mooy fa tabaarakallaahu loo xamante ne day jàppandal nga gis ki koy liggéey sax xéwal ku ko yàlla di defal nekkate latif bi nga téye di ko zikar nekkate yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngay tudd borom xam-xam bi ne fa xasibtu amraka wal jalalata jaani lutfu illahi fa anta siru latif ne yonent yàlla muhammad réglé naa sa tur euh, réglé naa sa dund fa xasibtu amraka réglé naa sa dund mooy 63 ans yi nga dund wal jalalata ak ak jalala mooy allahu mu ne jaani ci la ma dikkalee lutfu illahi mooy latif mooy 129 fa anta yow yonent yàlla muhammad siru latif yaa sikare latif kon su ko defee yàlla na yàlla yokk suñu cofeel ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàmmu gi yàlla na bu mu doon suñuy mujj ak gàmmu te yàlla nañ ci jëlee ngërmandeeg borom bi yàlla nañ ci jëlee njégaleeg borom bi yàlla nañ ci jëlee yërmandeeg borom bi bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam lu waaye am ci teraanga teraanga ji lu mu rëy rëy rëy sopp yenent bi bëgg yenent bi ak gën a riis na ñu yàlla may bëgg yent yàlla muhammad ci zahir ak ci baatin bi jaay sidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam in uridu ila al islah ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu